نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى déjà maa ngi nuyu ñu ñuy seetaan euh, fu ñu mën di nekk également di wax ni rek euh, depuis 2013 lañ ko initié woon euh, tey ñu ngi ci neuvième année bi mu nekk loo xamante ni également dañ ko dañ ko initier juste pour participer parce que xombal la ñu dëkk et pour ñu xam ne ñu ngi leen di xalaat ñu am ñu ñàkk ñu ngi leen di xalaat mu tuuti mu néew mu bëri ñu ngi leen di xalaat lu ñu am mën nañ ko bokk ak ñoom donc mu nekkoon loo xamante ne ni bi ma koy initier sama yaay moo ma ko moo ma ci waxoon tuuti ni ma boo dëkkee si dëkk da ngay def loo xamante ne des fois dañuy xam ne yow mii yaa ngi xalaat waa dëkk bi donc ma initier woon ko moom tamit mu nekkoon occasion boo xamante ne da jël di teral ay xaritam ñoom ñëpp ñi nga xamante ne xam na leen ak néew di doole xale ji nga xamante ne ñu ngi fii nii ci ci seen loxo jotul seen gannaaw donc ren comme ni nga ko waxee léegi nekkoon na euh, édition boo xamante ne xalaatuma woon sax def ko def xalaatuma ko dans la mesure dama voyagé woon donc bi ma ñëwee ça fait juste ay 10 jours ci laa ni xaaral ma def ko ñi nga xamante ne ñu ngi ma daan jàppale aussi xam naa ne buñ ko gisee dinañ ni euh, kii waxuñu ko ren mais juste am na ñoo xamante ne nii ay 4 trois quatre personnes la ñu toll ñoom euh, laa laa ci laa ci woo ku mel ni euh, ki nga xamante ne mooy monsieur Dieye di directeur douane euh, moom jàpp na ci bu baax suñu kii tamit suñu maire monsieur Magueye booy moom tamit bërki démb laa ko woon ni ko damay dem xombol moom tamit mu participer et puis chaque année aussi da daan participer sans pour autant sax mu boobu sax nekkagul maire donc boobu da ñëw ànd ak man dugg si jumaa yi dugg si daara yi ànd ak man donc ren bu defee loolu je sais que ci ci ci ci ñun la bokk euh, également di remercier également waa Case des Tout Petits ndax seen DG li nga xamante ni euh, mooy euh, madam sisoko euh, di may mu na moom itamit dafa dégg rek ñu naan ñaatam day def ay don moom itamit mu yónnee ma participation directeur électronique corp même chose monsieur Cissé di leen remercier madam Ba bu palais de l'immobilier bu groupe Futur Média également moom itamit jàpp na si donc ñooñu ñëpp nag dañu ñëw joxe seen participation symbolique ci li nga xamante ni moom lay moom laay def mu les dons à Khombole tey nag spécialement dañuy dem si li nga xamante ne ñooy kilifa yi waxee kilifa yi dañuy tudd euh, les imams bu ñu demee ci imam yi jox leen ni mu toll parce que ñoom imam yi loo leen jox dañuy ñëw séddoog ñi nga xamante ne ñoom la nekkal bu ñu jógee foofu dem ci daara yi dem doon niñ doon def chaque année mais ren exceptionnellement dañu gën a euh, xëcc suñu jëf jëmale ko ci ñi nga xamante ne korité day jot duñu mën a sax teg cin wala buñ ko mënee aussi du bëri ñu ñëw dugal suñu participation symbolique ku ci nekk dinañ la jox euh, donc andi nañu ceeb andi nañu suukar andi nañu dëwlin soble nga xamante ni mooy euh, mooy tuuti koom boo xamante ne ñu ko jox accompagner leen si li nga xamante ni mooy mooy korité gi donc ren loolu la ñu nar a def mu nekk benn mm, participation symbolique boo xamante ne dinañ ko def ci population bu bu xombol euh, di leen remercier yéen ñi nga xamante ne ñëw ngeen di ci jàpp toute ma famille ak ñëpp ñi nga xamante ni également ñun ñuy seetaan je pense que beneen yoon mooy dàq parce que ñu ci bëri woo nañ ma si yoon bi bi ko naa leen ko a wax dañu bëggoon participer man leen tey laay dem xombol donc du ma xaar kenn et puis xam naa ni déwén ak année yi di ñëw mooy dàq dañ ko def mu gën a mag incha allah. voilà ngay doomu xombal te vraiment mën nañu xombal rek bokk la parce que tund yu wër yëpp dañ lay bàyyi xel. Mm-hmm. wala beneen yoon mu yokk ko dem mbalaal yeneen commune mel mais loolu mooy suñu rêve parce que ñun aussi mënuñu mënuñu ñu si lu ñu mën lu ñuy jëlee ci suñu poche dañ koy jël waaye suñuy xamel la ñuy gën a utiliser parce que man yorewu ma association yorewu ma li nga xamante ni moom mooy mooy mooy fondation dama ni ñaatam à titre personnel may dimbali da nga naan kii kat ñaatam la enveloppe ngay jël ni ma am lii laa la jàppale bu dee dërëm damay jël bu dee 1000 francs damay jël bu dee 2000 damay jël euh, bu ma ñëwee nag daal koy def si xombol mais jour ba nga xamante dem naa ba nga xamante ñi ma woo nii tey ak démb ni dañu heure bu ma koy defati naa leen woo dañu bëgg a participer jour bu ñëwee ma la dañuy dem région de Thiès pourquoi pas ndax day bëri <laughs> yaatal ko ñëpp xañ nañ si ñëpp a <laughs> Et je remercie également euh, toute la presse, hein, toute la presse. Euh, je remercie euh, Web Radio, euh, sans, sans, également, qui sont venus de Dakar. Et ils l'ont su hier. C'est hier qu'on les a mis au courant. Ils ont pensé quand même à venir me soutenir. Et également euh, IGFM du groupe Futur Média, ils seront là tout à l'heure. Mais également euh, remercier première plateforme, Humble.net. Voilà, donc euh, on est fiers de vous. Et puis euh, tout à l'heure, je serai en direct sur euh, comment les Humble Info et Humble Link. pour discuter, parler avec eux. Merci à ma famille, merci à mes amis qui moo accompagné et puis euh, déwénati tout le monde. yàgg leen fi lool yéen ñëpp te wér di ko teewoon leen di ko assisté waaw yàgg leen di ko assisté waaw at mu ne nii xombal nii la ko ñaatam di def ba mu baax kontaan nañu suñu xol sedd na yal na seen jàmm yàgg yéen ñi koy def yal na seen jàmm yàgg kontaan naa suñu xol sedd na guy waaw lu ngeen man ren yal na ngeen man déwén lu ko raw waaw màggal ak lu ngeen man ren yal na ngeen man déwén lu ko raw kontaan nañ de bég nañ seeni morom a nekk ma tëdd ci seeni appartement kon bu leen neexoon ngeen def noonu ñoo leen di ñaanal seen jàmm ñu leen ñaanal fan wu gudd fu ngeen bëgg a egg yal na ngeen نويت صوم غد عن أداء فرض شهري